assalamualaikum mbokk signature contrat bi ñep doon xaar yek sen wa comme ni ma préparer yeneen combat yi rek dem geej fajar midi ma dem salle de musculation 5 heures ma dem contact man ki taxuma jóg nañ ma jox modulo wala Balla gay 2 waaw. yow lambe di bam da xolal ya fi gëna bari wax dem nan say doom ba pata ñew fi bëgg sonal nit ñi sama combat ak yow du diré 10 secondes dama lay wacce yow tay dama lay lek yow sa loxo dama lay caab di nga bëre di nga xex na la door ba nga sadd yow. asalaamaaleykum sëriñ man dama am combat bu jamp jamp suba suba suba ñu boole ma ak yow. yaa way de waxal alhamdulilahi rabbil alamin. alhamdulilahi rabbil alamin. waxaatal alhamdulilah bila yàlla indee si mën nga gagné combat bi yaa xayri. alhamdulilah. yow xamu leen Yaxya Joob Yékini. Yékini ruuxa séeréer boobu xam nga ko. waaw waaw Yékini xam naa ko. fukk ak juróomi at yi mu toog si Sénégal daanaka man maa ko yoroon fii. ay waay yàlla bëri sutura combat bi kay sëriñ mën naa daan rek parce que kuus dafa bëri wax waaye waaw lapotaake laa lay jox xam nga yow sa ndox la moom xal ndox bu sotteekoo si xal dafay fay waaye nag lapotaake bi daa am lu muy àndal il faut que boo daanee nga dem fanaan si armée si wetu néew yi ah nangu naa loolu garaawul sëriñ yaa waay li gis nga boo ko deful dina yónni suma jinne ñu feeñu la ñu caw la xiir ba nga sow ok dinaa ko def sëriñ nar, t'inquiète pas hey taxasantiya bul ma wax sering nar, naar mun a wax sëriñ kese nga yem ci nga wax sëriñ naar taxasantiya waa xanaa doo naar nag sëriñ am mbokk yi puus mi ngi noonu na ba sama ñu dugal suluxu laa ilaaha illallaah xoolal suñu xula muy bàkku mi ngi noonu ànd ak aatu tubaarikàlla nit mbokkam aatu mi nga xamante ne nii mooy magum numbe tubaarikàlla xam ngeen ne suluxu la jugee waa ko nim ñëpp jug paa yëpp jug na noonu mbokk ñëpp a ngi ànd ak moom ay wi bàkku ah mbokk yi nag ñu bëgg dem ci càppaandaw ga bàkku nañu ba pare arbitre bi may na leen 10 minutes ñu mën a def seen i débat

wadama ne lima jaaxal jaaxalu len pousse tolul woon ni de me xali pousse mi nga dana de xana bu deelu sekk bi dafa ko mur loo jox kii nekkatul kattan de xool ni mu njoolee mbokk yi wure ba dem nak ñoo xam ak dem nañ taale arbitre baaji non di waaju soufflé ñaari mbeur yepp ak ngi taxaw tay dama lay lek yow sa loxo dama lay Wow, setan nga ba pare eh? Dead, dead, dead. Bulldog, dal foo fi, cappal fi. Besel fii bësal bouton bu xonk bi nga abonné bu ko defee vidéo bu bees bu njëkk a génn nga bokk si ñu ko I love you